parce que sànka mm. bu comprendre sax dina foog la bañ a jël parce que dama la forcer jël ba sonn nekk dafa am ku càng ci live munul génn mais maa ngi jégalu di tuub itam parce que tamit dama jël franc mu toog wax lu ko neex ci yow ba man dama mujj rus xalaatuma woon ni que doomu aadama dina toog yow ak ni ma la xamee doomu aadama dina toog di yëkkati ay kàddu yu tool noonu di ko jëmale ci yow maa ngi baalu ak bu baax mais mais loolu jarul baalu ak sax hmm. xam nga moom toog si sa toog mu neex nga yor sa kaasu soow di ratatati rek loolu dafa yomb loolu loolu loolu dafa yombu trop hmm, hmm, loolu ñëpp mën nañ ko yow sax mën nga ko boo toogee <laughs> naan giri day giri de day wax sax di xiix mais loolu da nga ko war a faj ci géew bi loolu da ko war a xëcc si biir géew bi weer ko wan ne kii carrément du mbër man xam dafa am détail yoo xamante ne doo leen ko wax di ko leeral. Mm-hmm. man ba may mm-hmm. bëri stade Demba Diop grand combat boobu. Mm-hmm. Franc moom mi ngi buuxante stade Iba Mar Diop. man mbër bu may yab ci làmb ak ku mënti doon gëj a bëri nga may yabee mais du palmarès du fulla ci géew du fit du jom. man ku ma mës a bu fulla jotee damay def li may def dem sama yoon. nag léegi arène nationale comme que sa mbox loola ku nekk day ñëw rek bëre. Mm-hmm. boo teg leen ñaari combat ñett commencé di ratatati jàpp na yow yaa supérieur ñëpp. Mm-hmm. man xam nga wax ji lan moo ma ci naqari parce que man day dem ba mel ni man maa bëgg bëreeg Franc wala dama koy wëri wala dama koy ndëkk Franc li indi suñu wax mooy waxu giri bi mu doon wax. Mm-hmm. te moom nee na quatre-vingt-treize la. ah giri giri quatre-vingt-dix-sept la dugg ci làmb mm. boobu giri di dugg ci làmb moom trois ans la am mm. kooku boo demee ba ne dañ koy ndëkk loolu loolu yëfu ñàkk loolu yëfu ñàkk ñàkk la loolu du mbër boo xamante ne am na vision mm-hmm. làmb dafa war a dafa war a metti mm-hmm. ñun ñëpp ay morom lañu dañu war a mbëkkante mm-hmm. bëree ganjël kon tey boo taxawee fii naan kii nii nangam man looloo ma metti comme ni mu mel ni man maa soxla Franc wala man dem na sax bëgg bi ma Franc li indi suñu wax waxu giri la wax moo tax ma tontu. li ma gën a jaaxal ci wax bi dem na ba ci. Mhm. mu ne sax yow ak doomu dàngu ak Quench ak ak ak guy gi ku leen boole woon benn tàkkusaan yéen ñëpp da leen di daan ko te dañuy naan moo leen. waaye yow loolu yomb na déggoo li ma la wax. Balla Gaye ak Modou Lo ak Bombardier boo leen boole ci tàkkusaan man ma daan leen loolu wax ko yomb na. Mhm. wax ko yomb na fii gars yi xam na kër gu bëri xaj day dof dof lu nii rek ku nekk toog di nganda ngandalu mais genn wàll gi yëpp ay tàppet la ñu am ah, nañu doole ñeme nañu entraînement def nañu lépp mais dama ne la bu mystique amul woon ci làmb sax duñu ngembu genn wàll gi yëpp duñu ay combattant ay tàppet la ñu dafa am affaire yu ñuy mottali ko rek bagage yi xew ci làmb rek moo tax ku nekk tëb di jaay fit mais fii làmb ji ñun ñëpp xamante ne. mooy yow doo dooma may jàmm dama la la genn wàll gi yëpp ay tapet lañu dañuy sóob nii rek sa biir kër kii du mbër kee mooy mbër di classé say classé loolu yomb na loolu dafa yomb trop li mu wax sa itam ba jàngat nga ci def mu sa grand lu mu ko wax ñàkk jom la parce que kooku mi ngi ne la magum jëm la xam nga ñaata at la def ci carrière vingt cinq ans de carrière la def vingt cinq ans te ba léegi mi ngi existé moom na bàyyi ba def vingt cinq ans de carrière ñu xool moom Franc nan lay mel ak ñan lay bëreel xam nga mi ngi door a bëreel defee dix ans ci làmb bëri na nañ bàyyi ba mu am vingt cinq ans de carrière xool ndax moom mooy tane giri wala dara giri fu mu mënti toll ci làmb baax na parce que vingt cinq ans la bëre mbër bu fi def vingt cinq ans de carrière fin de carrière donc ngay mën a nekk par force kon wax yooyu noonu muy wax foofu respect rek moo fa war a am ndax giri baayam la ci làmb nii baayam la ci cachet baayam la ci am-am baayam la ci tur ci Sénégal yëpp baayam la ci tur ci ci monde bi yëpp. Mm-hmm. fépp lépp lu nit di am ci àdduna ci làmb wala sportif giri moo ko fa ëpp. fi turu giri dem demu fa ci Sénégal demu fa ci monde bi. Mm-hmm. am-am bi giri am ci làmb moom amu ko ci. dara foofu noonu bëtu baay rek la ko mën a xoolee leneen lu mu ko xoolee wala lu mu ko wax yàq na ko. non moom fu mu classé Gris Bordeaux yow foofu la la classé classé en tant que. waaw loolu bu ko neexee loolu c'est trop facile. man déglu naa seen wax yëpp. mais wax yëpp amul dara lu ma ci métti lu dul ay reetaan la ma def. man parce que toog rek nit di tàllaku nii di wax loolu dafa yomb. mais man Gris 2 man xamewuma la benn pathologie mais yow dem na ba ne médicalement sax bëri yow wóorul médicalement parce que mu ngi dund ni yow mun na safaan mun naa. waaw loolu waxu tapet la fii làmm laa la wax ku fi mën sa morom da nga koy jàpp duma duma ba muy bëgg de weer ko tëral ko ci suuf dem sa yoon sa waay hmm. fii gaay gaay ku ci nekk xam nga bu baax li bëgg xam nga bu baax li ngay def ay mbër bii amul coow mbër bee day fecc di wëndeeloo kii du fecc loolu yëpp ay waxu tàppet la loolu yoonu mbër nekk làmb jëflante la dañuy ñëw ñun ñëpp jàkkaarloo ku mën sa moroom rayal suul bu la neexee après buñ fa bari ñëpp ñu dem seen yoon mais toog fii waxu dof naan kee moo wér rek kee moo nekk mbër rek kii nii bu dee ndamam yi mu mujjee am moo ko dof la woon na yam rek ñun ba ñuy def yii nii yëpp nii muy def ñun bañ koy def boobu moom bi ñu dem ba jóob di bëre. am na sax na wax si digganteeg Forza am na lu mu ci wax. waaw loolu loolu waxu jaxase li muy la wax rek parce que nee na dama mel ni man considéré wu ma Forza Forza c'est grand mm. moom xam na man sax mbëru Fass moom pour jaxase ma ak kenn du yomb parce que man. gaynde laa ñoom ñëpp ku si nekk xam nga ma man yàlla dogal na namuma dara namuma kenn ci dara bëre bii muy wax sax bëreeg ñàkk bëre laa yemale ay day toog trois ans du bëre nangam nangam mën naa toog dix ans du ma bëre te moom du ma tane ci dara dara lu nit lu doomu aadama di am moom du ma ci tane lu toll ni virgule kon man du ma nit ku xonet ku xonet wala kuy wër dara mhm, mhm. Mhm. waaw mais yi mu ci Forza naan man dama mel ni Forza jàppeewu ma ko dara Forza c'est mon ci la ci bëre mais mhm. Forza man ak moom ñoo bokk adversaire boobu yàgg na mat na cinq mhm. ans man ak moom ñoo bokk ay adversaire di bëre bëre naag Abdou Diouf pare ma bëreeg Abdou Diouf bëre naag fo euh, Pakala pare ma bëreeg Pakala. mu bëri waat ak moom. noonu yu muy wax noonu ay affaire de rawanteeg yooyu man yooyu laa doon leeral. mais man pour bëreeg franc. alaaji Fadam li neex ci làmb ji tey mooy moment bi may waxee yow nii rëg-rëg mu ngi seetaan doomu dàngu mu ngi seetaan franc mu ngi seetaan grideur ngi ci ligne bi mooy fadam am na luy waaj a xew te promoteur bu mag nee naa la mu ngi ci live bi sànq dafa def demande man maa ko bëgg mu pause nii rek pour ñu régler contentieux yii nii mais alaaji fadam koy wax ak grideur kii wax nii grideur du moom <laughs> wax nag dëgg la laaj fadam man la Fadam man la. non man man mënuma ngeen teg fii mu toog fii di ratatati moo tax ma ma changé ton tuuti rek. wan ko man nam mu ma bëreeg moom bu dee loolu la foog man damaa bëgg bëreeg moom wala dama koy wër parce que loolu moo ma ci metti dafa dem dafa dem ba mel ni man maay bëgg bëreeg Franc di ko top te Franc li waral suñu wax ci internet mooy giri bi mu tudd moo taxoon ay explication mais man adduna du yàgg mu ci adduna ba ma taxaw naan damay ndëkk franc ci àdduna loolu man ku ma fekk sax danaa ma yow est-ce que eh. ndax franc fayeekuwul ci làmp lu ma fayeekuwul. dëgg defu bëriwul bu rëy ci làmb bu ma bëriwul. bis bu mu gën a bëree bu mu gën a bëree ci làmb mu mu am coow moom ak soq la te sama tàkkusaan ak Ablaye Ndiaye moo ko gënoon a rëy foofu. mais man Gris 2. Gris tey laa mës gis nga waxee ci niveau bi. am lan la Franc wax lu mu la warta wax ba tax tey ji nga waxee ak nga waxee nii ndax tey jii yaakaar na na Gris 2 man xaw ma woon ne ndekete denc nga lu mel nii. waaw ah, tamit ku naan ko nooyi bi ah, man bu ñëwee ba Franc naan da fat. waaw ah na ma nag métti na ma <laughs> ah, man man poids lourd de je pèse du ma du ma wax samay poids mais en tout cas super lourd laa mais nit musuma xooxloo ci biir géew nit musul déplacé wu bañ ne Gris 2 mënul déplacé wu. parce que je suis jeune. te nee na je suis jeune. ñi ma xam yëpp xam nañ ma. Fadam poids lourd laa waaye damay tëb ci kaw damay xeex damay wàcc damay bëre. question bi musuma yow. Fadam ci géewu làmb ñu ne Gris 2 dañ koo déplacé wala dañ ko xooxloo ci làmb amul. Fadam question bi da nga ko war a mottali Gris fanaanee na. moom mun na daw cent mètres ñëwaat am na ñoo xamante ni mënuñoo bouger bu ñuy bouger di bàyyi. moom moom am na ñu mu neetal ñu ma xam moom dinañ ko wax de Gris 2 mi lu mu toll moom sax xam naa ne yooyu sax la la la lañ ko signalé Gris 2 mi lu mu mënti toll amul problème ci yaramam yàlla moo ma dogal nag may super lourd man nangu ko nag. mais Gris 2 travail bi boo dama koy def heure bu jotee. Gris 2 ndax Franc mës naa bëri super lourd bu mel ni yow. Oh. man lijjantiwuma Franc man damaa bëriwul ak moom sax man damaa soxlawul Franc man ma toog bëri. ba ñu bëree man damaa lijjantiwul Franc. non da ngay lii ma gis ndax nekkul ne Franc bu mel ni yow arrangé wu ci bëri. waaye loolu li nekku si man daal xam na man xàmmeewuma kii mooy Franc kii parce que lu mu néew néew am ay nit yoo xamante ne. dañ may supporter di ma topp làmb bu dul làmb ci bokk yam samay nit lañ yoo xamante ne toujours li ñu bëgg mooy gis ma ma takk ngeen ba bëre man loolu noonu moom fi ndax jot Gris 2 nga ñëw jël Franc mi corriger ko wan ne ko nag sa wax jii da ngaa war a teg sa gémmiñ ndax tey jii yaakaar naa ne bu ñëwee bay attaqué Reug Reug attaqué Gris ak Gris Bordeaux attaqué Sa Thiès non dafa jot na nga freiné ko freiné ko freinage nag jot na. waaw lu mu ko njëkk a. li muy li muy wax ci man dama nag moom musuñu laale musuñu def hmm. dara. musuñu wala déet muy wax ci man moom xanaa kon Reug Reug moom lan la ko war a wax. Reug Reug mi nga xam ne nee na nee na ci armeer kese la ko daaneewul. kon moom Reug Reug la ko war a wax. Euh, Reug mi ko daan fépp. ah yaa ngi yëpp na de. bu ma waxee dara bu waxee dara ne Gris 2 du nangam du mbër du nangam kon moom Reug Reug mi ko daan fépp. lan la ko war a wax moom. moom hmm. moom nee na Reug a bëreel moom ci armeel rek la ko daanul. Hmm. waaw yow nañu may jàmm nga bàyyi talaxu bi man soxlawuma ko man man lijjantiwuma ko waaw na xam loolu man lijjantiwuma ko la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn doomu dàngu gi ci ligne bi la kenn du ko kalaf. mais man mais man li sans problème man li sans problème. Mhm. Gris 2 ndax fii mu waxee yow ni mu fayee làmpam bi ndax nekkul day tuur ay moo tax mënut a taal làmp bi. sànq da doon commenté di commenté di commenté man sax maa ngi gis commentaire. waaw bugguma woon li mu doon wax. mais Franc moo ko wax loo xamante ni Gris toog na cinq minutes. mu dëgg la loolu dëgg la. après dañu wax sax li wax sax moo tax mu jékki-jékki reetaan mais xam naa ni foofu lox na. Mhm, pati na mhm. nee na ko métti. parce que parce que dama ko dégg muy wax waxu tàppet te billahi ñi mu naan tàppet moo leen gën a doon tàppet. moo wax la loolu nag tey jii ci moom. dina bëree champion la mën na daan ku ne. mën na daan ku ne mais français la. du mbër mu dul xalaat. keroog maa ngi wax di tudd Sa Thiès dafa am ay mbër mu dul xalaat. ci la dafa am ay Fadam. non bu wax jotee rek dañuy nga wax nga ne dégguñ ko nga ne. Fadam bu wax. jotee dañuy wax keroog maa ngi def benn interview di wax ba tudd Sa Thiès jeté ko de fleur mais dafa bokk ci mbër yu dul xalaat ay mbëru gaynde yoo ne amuñu lu ñuy xalaat mais moom mi si ñi français day sóob am <laughs> na doole mën na bëre mais eh, la wax nga dëgg wax nga dëgg li tax saa yi jógee dem ci ko su France wax nga dëgg waaye muy tapet nga naan ma day sóob nii rek di xàññu nga naan ma waaye <laughs> yow la ilaha te lu ma ci métti. Fra fii rek toog naan xamante ne bu baax tapet la xamante ne. waaw moom loolu. yow Reug Reug nee na ci armée rek la la fu ne ngeen daje fa ci àll beeg Dakar ak. la fa nga ne tapet la. Euh, kon mooy tapet bu mag bi xam naa ci leen de ba coow lii de xaw ma fu mu mais dama la bëgg a wax. dama ne la sa yoon newu ci sa yoon newu ci génn fii. non fils de Balla man maa ko faalewul sax moom fu mu toll nii bëgg na génn ci combat ba bu yàgg ba dugg fii moom poids lourd yi ñoo ko neex mais na xam ne kàddu production journée mu ngi koy xaar digganteem ak Lac Rose loolu leneen la mais lii ñaari poule la alaaji Fadam ñaari poule te boo xefee sax Reug Reug Bombardier ñu tas ko dugal ko ci poule yi parce que Gris 2 am na leneen lu ko naqari digganteem ak Reug Reug mais Gris 2 tey Franc dafa wël Franc lu lépp lu mbër mës ci làmb mu naqari Gris 2 wax bi ko Franc wax moo ko gën a naqari man xam naa Gris 2. te Beuz Franc ñematut a teg tànkam faas ñematu koo teg caaru géej. nee moom amul lu muy ragal faale wala ñoom lii ma lay wax nii lu ma leer la. ma de compte mu ne faalewul ay règlement. ay bu tegee tànkam faas suba. ndakaar lu wër Medina ba teg tànkam. mu doon gën a neex Gris nekk ci néeg nga xool nag ñu tëj bi nga xool nag Franc du dugg damm caabi bi. ndax Gris 2 bu ci néeg franc néeg bu damm caabi man man man bés man wax nii <laughs> yëngalu ma mais man dama ko seetaan jàkkaarloog moom fii ngeen di laaj muy wax may dégg. looloo tax dama koy répondre mu dégg pour benn affaire li ma bëgg mu njëkk koo xam mooy man soxlawuma bëre ak moom. naa nekk ñàkk coow ak toog trois ans bëre wu ma lu nekk na ko wax mais man soxlawuma bëre ak moom. loolu dama bëgg mu teel koo def ci bopp bi man nekkuma fii ci làmb mukk boo seetee heure bu may laaj mbër day fekk boobu ma jàpp ne kii adversaire la boo xamante ne kenn du ne Gris 2 dafa bëgg lu yomb man gisoo ma sax may sonal sama bopp ci grand yi naan na diw ñëw ak nekkee ñëw damay xool adversaire boo xamante ne kenn du ne kii dafa bëgg lu yomb ma laaj ko bu ma bëree ak moom baax na bu ma bëree moom. je m'en fous dafa mel ni da ngaa denc lu bees loo xam ne nii lu mën a feeñ ci waaw yow yow yow yow ñun yow ñun li man yow yow Fadam. wax non wax Giride. lamb lamb la nga naan tuuti ñu doog a àggali. ba Giride mi. Euh, euh, orge bi yéeg na orge bi yéeg na. naanal ndox naanal ndox Giride naanal ndox ndax xam naa ne. mais yow euh, man man man garaawul munu man kii munu ma sax merloo damaa xam ne. munu ma sax yëngal yàlla xam na ne wax ni muy wax nii yëngalu ma sax. mais wax mais Gris 2 merloo wu la waaye nag sa yaram yëg góor Gris 2 merloo wu la nag waaye sa yaram yëg na ni góor wax nañ leen góor mosut wax tey. man Fadam non dama lay wax dëgg man dama lay wax dëgg man Franc li mhm. waxoon man tey ma dagg billet ñëw Sénégal dama buzz bàyyi laa làmb lii buñ ma ko waxoon te caaroy géej laay dem jàkkaarloog non dem dem jàkkaarloog parcelle franc man damaa toog ba ci yàgg dama naan ndax ndax ndax lii franc wax ndax ndax du ko rëccuwaat te ku ñeme den laa dee est du Papa Sow moo dee franc du ma ko wér du Tafa Junior moo dee franc faram dama lay wax nga ko baax ñooñu buñ ko deewoon jël na combat bi yëpp